gan gi euh, Ali euh, Mohamed Sega Camara moo jiite mouvement pour le parti de la construction nekkoon fi secrétaire euh, exécutif conseil national de sécurité alimentaire xelam ma ci wàllu sécurité alimentaire ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM. maa ngi leen di di leen fay. Hmm. te di leen ñaanal. Euh, altine jàmm. jërëjëf yi itam ñu ngi la koy ñaanal ñu tàmbali waxtaan wi ak jafe-jafe yi Sénégal am euh, ngir am yenn euh, denrée yu am solo lool lu ci mel ni soble jamono yi yëpp ñu am ci lool ay jafe-jafe kilo bi jóge ci ay quatre cent ki cinq cent dem ba ci mille deux cent francs lan moo waral yooyu la jafe-jafe ci sa xalaat. waaw Fatou maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi. Mm. Euh, di wax sénégalais yi ni que euh, li indi jafe-jafe mooy que euh, nguuru Sénégal dafa seetaan filière bu toll ni filière horticulture ndax boo nee tey jii dama moomee sama bopp ci lu mel ni wàllum béyum soble wala légumes yi. Euh, li koy war a firndeel mooy que warut a manqué ci réew bu fekkente ni euh, moom nga sa bopp ci mbir moomule da ngay béy ba mu mat euh, ba nga doylu donc warut a manqué ci réew moomule bu fekkente ne nag ñoo ngi dañuy toog ba nga xamante ne day manqué ba ñu koy jéggaane donc di ko wuti ji ci ay réew jàmbur ñi nga xamante ni ñoom seen suuf sax doyu leen dañuy ñëw ba Sénégal béy ko parce que li ci bari. Euh, tey jii ay marocain ñoo nekk ci ak ay ñoo nekk ci filière boobu yi ci biir Sénégal te ñoo ciy béy lu ci gën a bari donc bu fekkente ni loolu am na ça veut dire que donc sunu nguur euh, faydaalul euh, mbay mbayum légumes yi ci biir réew mi euh, doo wax ni dam dam dam béy naa ci ba mu doy te munoo munoo munoo munoo ci jëfandeku ba ba nga xamante ni sénégalais mën cee am man cee gis seen bopp nan la kilo mën a soble mën a jógee jamonoy président Abdoulaye Wade ay ñaar fukk ak juróom ñoo toll fii ci jamono ji ñaar téeméer ak ñeent fukk xam nga loolu day na doy waar ci kaw ñu ngi wax ni euh, soit euh, ñi nga xamante ni ñoo koy béy ci biir réew mi dañoo denc ngir màggal bi loolu ay waxu waxu waxu kasaw kasaw la parce que loolu dégg naa ko ci marché yeeg key yenn yi parce que euh, màggal gi benn instant la. Hmm. te ña fay dem aussi vraiment donc mënuñu jënd soble bi yëpp. ça veut dire que soble dafa manqué ci biir réew mi mooy dëgg te ba ñu koy jéggaane Maroc xam nga loolu ñaaw la. Hmm. ñaaw na trop. mais lan mooy problème mu Sénégal est-ce que euh, ndax ministre bi nee na am nañu autosuffisance maanaam am na ñu soble bu mën a doy ñëpp euh, ci jamono bi ñu ko soxlaa mais pourquoi problème conservation di posé wu boobu ba léegi. est-ce que dañ ci deful investissement yi war wala wala lan mooy problème bi mais loolu moo lay won ni que vraiment amuñu autosuffisance parce que boo amee autosuffisance doo am lu manqué ci biir réew mi euh, euh, perte post récolte yi ya nga xamante ne moom nga war a euh, sàmm pour que nit ñi bañ a perte seeni seeni seeni seen li ñu góob ci ci ci ci ci ci wàllum soble ci wàllum yeneen i légumes yi mais il faut nga def politique bi nga xamante ni day dimbale ñi koy béy ñu mën a conserver benn ñu mën a transformer ñaar ñu mën a euh, def ay emballage yu yu yu yu yu yu méngoo ak jamono te ñu mën koo jaay ci ay njëg yi nga xamante ni sénégalais mën nañ cee jot loolu boo ko defulee sa veut dire que sa politique bi dafa matul dafa matadi problème bi lépp loolu la. munoo engagé. Euh, donc ay dépense ci filière ne damay damay béy rek góob mais béy góob même même gerte ña nga xamante ne dañ koy béyal seen bopp buñ demee ba tollu fenn dañ koy toj xolli ko buñ ko xollee ba pare ñu mën ñu mën koo jaay wala ñu mën koo mën ko transformer def ko degeeg yooyu mais lu lu lu lu tere Sénégal mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci secteur horticulture bi jàppale wuñ ni leen c'est ça la vérité loolu moo moo fi am. d'accord donc ah, gis-gis bi nga xamante ne moom lañ ci am. Euh, dafa yem képp ci mbéy mi rek ah béy nañu toll toll toll nañu fi nga xamante ni mooy nangam tonne nangam million milliers de tonnes donc euh, voilà donc euh, ah, am nañ suñu bopp donc moom nañ suñu bopp vraiment ci wàllum mbéyum légume mais loolu loolu jëmul Sénégal kanam. donc boo annoncé nit ñi ni que vraiment damay def ay. Euh, euh, juróomi junni euh, milliards ci secteur agriculture pour mën a développer mbéy mi mais mbéyum légume ci la ndaxte boo soo béyee ceeb wala boo béyee leneen leneen li nga xamante ne moom mooy nekk base su base su añ ak reer bi mais ay légum ñoo ci tegu ñooy tax vraiment donc nit ki mën a dund dund bu sell mm. te loolu boo ko boo ko sàgganee nga bàyyee ko ci ginnaaw naturellement day andi ay problème mhm. président Macky Sall bi muy def gouvernement beneen euh, jamono yële dafa tab Aly Ngouille njaay ministre de l' agriculture mais boole ci ay euh, objectif am principal euh, wàllum autosuffisance alimentaire maanaam ñu am lu ñu doy sëkk ci wàllu lu ñuy dundee fan lañ ci toll bi ñu ko taxawalee booba gouvernement ba léegi est ce que jàpp nga ne ñu ngi ci yoon bu baax bi waaw xam nga damay faral di wax ne Macky Sall dafay xëy rek quoi di mu bëkk ay bunt day xëy rek bëgg ay bunt te boo jitee réew secteur bu nekk dafa am li nga xamante ni euh, li nga war a def foofu mooy euh, planifier da ngay seet la nga xamante ni mooy euh, soxla réew ak bëgg-bëgg bi nga xamante ne moom lañ ca bëgg donc nga nas ko teg ko ci kaw Euh, benn euh, euh, document bi nga xamante ni moo lay mën a may nga nga nga nga nga ngay jëm ngay dem jëm kanam di ko di ko réaliser maanaam donc dafay mel ni da ngay am benn agenda bi nga xamante ni lépp li nga xamante ne bëgg nga koo def ci wàllum mbéy da nga ko ciy dugal nga teg ko mais loolu moom manqué Sénégal mm-hmm. moom day xëy rek dégg na benn affaire wala tukki na rek dégg gis na benn affaire donc day xëy rek mu ne bon Sénégal moon ci min lii laa jëm non nit da nga war a am cohérence boo jiitee réew da nga war a am cohérence ci li ngay def indi na fi plan Sénégal émergent mais plan Sénégal émergent du wax sécurité alimentaire je défie quiconque dama ci man teg na teg naa sama loxo ci kaw kaamil hmm. Sénégal plan Sénégal émergent du wax sécurité alimentaire du wax souveraineté alimentaire autosuffisance alimentaire lay wax ci yenn pàcc yi nga xamante ne mooy ceeb wala leneen depuis 2017 ñu ngi koy wax mais ana ceeb boobule ci biir senegal ñëw na bi mu tàmbee Aly Ngouille Ndiaye nee na juróomi junni milliards lay jël mu dugal ko ci wàllu mbéy mi depuis daaw ba léegi mënuñ ci gis dara ba ña nga xamante ne ay ay ay ay magasins yi nga xam yu séchage ak conservation yi ñu war a mën a créer eh, ci dans les grandes Niayes fi nga xamante ne foofu la ñuy gën a béy euh, so soble mais gisuñu ko ña ña fay ña fay béy dëkk di ko góob ñu ci bari euh, euh, dëkku dëkkuñu fii dëkkuñu Sénégal dañuy ñëw rek jël ay suufu sénégalais loué ko donc def seen mbéy mii lu luñ ci góob rek quoi ñu génnee ko jaay wala jaay li ñu mën a jaay ci biir réew mi li ci li ci des li dañ koy génne yóbbu ko ci biti donc euh, moo wax ni vraiment sax politique boobu euh, politique bu bu bu bu antu la wala politique bi nga xamante ni vraiment donc euh, njëriñ la sénégalais yi donc xaalis boobu nga xamante ni moom la ñu annoncé fan lañ ko dugal nañ ko wax sénégalais parce que gisuñu ko. gisoo ne yëf yi mi ngi am tan tuuti ci biir réew mi jiite woon. Ah, man de man de gisuma ko parce que Sénégal mi ngi ja mi ngi mi ngi jànko jànkonteel ak ay jafe-jafe dund. wax nañ ko ci wax nañ ko ci ci ci ci wàllum euh, intergouvernement bi nga xamante ne moom la ñuy wax SILS euh, mois d' avril bi nga xamante ne même mi génn noonu euh, def nañu réunion. Euh, réunion boobu nga xamante ne def nañ ko ci cité nuñu Sénégal ci li nga xamante ni wàllum ci wàllum jafe-jafe dund. Mm. Euh, ñi ñi ñi jànkonteel ci biir Sénégal. donc euh, ba bari na bari na parce que dem nañu ba pratiquement donc ci mois de juin juillet bi dañ daañu toll lu ëpp million doomu aadama yi nga xamante ni ñu ngi ja jànkonteel ay jafe-jafe dund. Mm-hmm. donc loolu bu amee ci biir réew mi <laughs> donc il foog nga nga nga nga laaj sa bopp donc euh, ana xaalis boobu ak jéego yi nga xamante ne moom la ñu waxoon sénégalais di dinañ ko def pour que sénégalais mën a moom moom seen bopp ci wàllum dund. kon boobaak léegi dara soppeekuwul bu ñu la déggee. ah man de ba léegi de gisuma ko bu buñ ko gisee nag nañ ma ko woon ndax dafay man damay wër Sénégal. Hmm. te damay waxtaan ak eh, kuréel yooyu. parce que bokk naa ci kuréel yooyu nga xamante ne dañuy seetu donc di xayma li li xew ci biir réew yi. Mhm. waaw maanaam réew réewu Sahel wala réew réew Afrique sowu-jant. Mhm. leneen lu xew ci réew mi mooy wàllu politique fës na si lool euh, Ousmane Sonko ak li tegu ci kawam tëj nañu ko génnee ko ci liste électorale yi tas partem euh, loola ban jàngat nga ci def. Euh, d'abord Adja Fatou dama koy naxarlu ndax fu nax fu naxar yem nag. vraiment ba ci kanamu yàlla maa ngi koy naxarlu parce que li dal euh, Sonko euh, yëfu maatey la président Macky ak justice am lañ ko jaay doole lañ ko jaay te euh, teguñu ko fenn ndaxte nit balaa nga ko radier ci liste électorale dafay fekk lu euh, luñ ko tuumaal mu nekk li nga xamante ni euh, nekk na dëgg benn ñaareel bi day fekk ni que euh, fu na doone benn jël nañ fo ay dogal pour ne vraiment kii définitivement moom moo ko def donc mën nañ koo dindi ci liste électorale yi ci kaw loi yi nga xamante ne ñoo existé et qui sont des lois scélérates dama koy dénoncer donc loolu amul bu fekkente ne affaire am diggante moom ak Mame Mbaye Niang la amul benn ndogal ba nga xamante ne jël jël jë jël nañ ko li nga xamante ne mu nekk ndogal définitif amu ca euh, moom digganteem Adji Sarr amu fa benn ndogal fu mu toll ni donc bi nga xamante ni mën na ko mën a condamner parce que ndogal boobu boobule c'est pas définitif parce que euh, jugement bi par contumace la mm-hmm. ñetteel bi nga xamante ni moom lañ ko tuumal léegi euh, jamono ji amul benn jugement donc fan la ñu war a mën a sukkandiku pour mën ko rajee ci liste électorale yi teguñu ko fenn jaay doole moom lañ ko woon te ñun mënuñu ko cee d' accord mënuñ ci d' tey mënuñ ci d' accord ëllëg te boo balaa ngaa radier nit ci liste électorale dafay fekk mu nekk période bi nga xamante ne dañoo tijji liste yi di ko di ko di ko di ko seetuwaat hmm. maanaam mooy révision donc fichier électoral révision boobu nag mois de mai bi passé la la la la jeex nekkuñu ci jamono ji nga xamante ni vraiment war nañoo mën a ràjje kenn ci liste électorale yi donc pourquoi ñu def loolu rax ci dolli tas partiem ci kaw lan lu ñu koy tuumaal ni vraiment donc loolu la dem mais dañu gis ni que pouvoir bi moom moo organiser ay milices yi di rey ay Sénégal àdduna wërngal képp seede ko ba nga xamante ni Macky Sall mënatul siggi siggi fenn ci ci ci àdduna bi donc comment la ñu mën a jël li nga xamante ne mooy seen ñaawteef ñoom ñu sëf ko ci kaw doomu jàmbur parce que kooku da leen déranger ci wàllum politique euh, euh, euh, ñu ragal ko ak xel ragal ko fànn na bu ne ñu ne ah donc dañu war a tas parti am. moo mais yi mu daan woote ba gars yi di manifester yeneen di xew loola bokk na ci liñ koy toppee. mais mani mani manifestation. Hmm. Euh, ndeyu sartu réew mi moo ko may. te ci jamono ab Abdoulaye war dañu ne boo bëggee vraiment donc dox ñaxtu da ngay bind rek nga teg nga dem teg ko ci kaw ci ci ci loxo yi ah, ah, ki nga xamante ne moo moo ko war a moo ko war a jot hmm. boo ko defee après nga nga organiser sa sa dox ñaxtu mais depuis que Macky Sall ngi toog dox ñaxtu kenn mënu ko def ci biir Sénégal ci kaw lan te ndaw day sartu réew mi moo tënk ñëpp y compris moom ci boppam président de la République lu tax mu mën a tere Sénégalais vraiment donc di def seen dox ñaxtu lu tax mu mën a tere ay ay donc nu mu tuddati ay parti politique vraiment donc di def seen seen dox ñaxtu di def seen réunion ci seen i biir siège ñi nga xamante ni siège bi ñoom ñoo ko moom donc bu président taxawee temb moom ak justice am bi ne vraiment loolu du fi am mais lépp lu xew ñoom ñoo ko fi indi ndaxte lu nga xamante ne loolu la ndey sartu réew mi euh, maye yow nga ne loolu doo doo doo ko nangu te nga jiite réew mi te nga nekk gardien de la constitution fum ko teg lu xew fii Sénégal ñoom ñoo ñoom ñoo ko fi indi. Hmm. alors donc li ñu teg ci ndond Ousmane Sonko ak parti am teguñu ko ci benn yoon te ñun dañ koy naxarlu ba ci kanamu yàlla. Hmm. te duñ ci yem nag. parce que combat bi nga xamante ni war nañ ko def pour que Sénégal mën a vraiment donc moom boppam Sénégal mën a vraiment donc am jàmm. Sénégal bañ nekk ci ay loxo yu koy nasaxal loolu dinañ ko mënee mu neex mu naqari Macky Sall ak ñooñam loolu dinañ ko mënee ci biir Sénégal bi teg ñu ngi ci kaw hmm, naka ngeen koy defee. waaw mais loolu moom. Euh, jarul nga ñu ñu ko koy wax. dina dinañ ko jëf ba nga xamante ni moom dina ko gis. ba kuy dem guerre du woon ay ngànnaay. <laughs> voilà. ayoo ñu wax ci élection présidentielle bi ñu dëgmal justement euh, gars yi commencé ku ne di wut euh, foo féete MPC kuréel gi nga jiite ndax dañuy dem ci opposition bi wala euh, nu ngeen di def. waa mais xam nga ñun déjà dañu nekk ci opposition depuis bi ñu jëlee sunuy lenge génn ci vraiment donc ay mbiru Macky Sall Euh, dañoo nekk ci opposition di organiser wu ci biir réew mi di organiser wu ci bitim réew. Hmm. ah dem nañu ba nga xamante ni vraiment euh, toog nañu waxtaan ak euh, sunu jigéen ju baax ji ñi nga xamante ni di docteur Aminata Touré nekkoon fi premier ministre nekkoon président conseil économique social et environnemental. ma nga xamante ni moom it vraiment donc Macky Sall amul lum ko lum ko bun xataalul ci biir réew mi. donc euh, ba nga xamante ni jël na euh, ay matuwaayam euh, mu ñëw seet si ñu ci jekk ak teraanga ñu waxtaan ñu jàpp ni que jamono ji ñuy toll ni Sénégal soxla na ki toll ku mel ni Aminata docteur Aminata Touré pour mën a jiite réew mi te jigéen ñi nag dam ñëpp nañu jàpp ni que waxtu jot na ndax ci biir réew fépp fi nga xamante ni réew dem na ban ban la sax ay jigéen la ñu woo pour mën leen Euh, jox euh, lenge yi ñu ñu jubbante réew mi boo jëlee Libéria noonu la Ellen Johnson Sirleaf boo demoon ba Pakistan bi nga xamante ne jullit yi rek a fa nekk euh, bi réew mi tasee vraiment donc Benazir Bhutto moom lañ dem jëli ji indi ko mu régler Pakistan boo jëlee Érythrée donc jigéen a ko jiite boo jëlee donc île Maurice jigéen a ko jiite boo jëlee Angleterre dans les années quatre vingt bi ñu demee ba seen koom bi la sax donc euh, Margaret Thatcher moom lañ dem jëli ji boo jëlee le Brésil euh, ba nga xamante ni yëf yi takarnaas na foofu Dilma Rousseff lañ dem jëli ji ñoom ñëpp dañoo jàpp seen réew teg ko ci ay raay parce que jigéen day uuf comme nu muy uufee njaboot donc Sénégal toll na fenn fi nga xamante ni Macky yàq na ko yàqeet il faut ñu jox ko jigéen bi nga xamante ne moom euh, xelam màcc na ci mbir yi te euh, am na taxawaay te am na pas-pas am na vraiment donc engagement ci pour mën a defar Sénégal moo tax ñun ñu tànn ko ñu ànd ak moom donc def coalition te coalition boobu ñu ngi continuer vraiment donc di di di di ñaan sénégalais. Mm. Euh, na na na na ñu ñu fekk suñu ñu ànd vraiment donc mën a jël réew mi te ko ci ay loxo docteur Aminata Touré. ndax mu mën a jubban jubbante réew mi réew mi nekk ci jàmm hmm. nekk ci jàmm nekk ci ay ay ay ay ay ay jéego yi nga xamante ne dafay développé comme bi a hmm. ndaw yi mën a am li xëy euh, am liggéey du xëy rek mais am liggéey jigéen ñi mën a tekki ci biir réew mi ndaxte ñoom ñoo ci ñoo fi ñoo fi gën a ëpp ci doomu aadama ci hmm. biir Sénégal donc par conséquent il faut que jigéen ñi vraiment mën a tekki ci biir réew mi jërëjëf waxtu wee ñu dab mënuñoo dugal beneen laaj ñu ngi lay gërëm bu baax Ali Mohamed Sega Camara jiite MPC prix mouvement pour le parti de la construction nga jiite woon itam conseil euh, national de sécurité alimentaire di expert ci wàllu sécurité alimentaire jërëjëf